Si langue politique bi avec des gens du pouvoir mais tourna avec des gens de l'opposition ni may toogee président Macky Sall moi ma ko nangulee agendaam permettre ko té ma assurer ko non lay togué ak Ousmane Sonko bu agendaam permettre Khalifa Sall Idrissa Seck Aminata Mbengue Ndiaye Thierno Bocoum Boubacar Camara

mais boo meree itam mënuma si dara du tax ma soppi li may def ak li may dox du gule nga gis un journaliste ci di engagé wu ci wàllu citoyenneté wala ci wàllu politik walla ci leneen ak leneen ak leneen nañu ubbi buntu yi nañu diisoo nañu waxtaan da nga yore nguur bëgg koo téye kii di wut nguur am yéene bu baax ci Sénégal yéen a bokk Sénégal yéen a bokk yéene lu tax reyante bi lu tax saaga yi jaru ko ku nekk nag na nga défendre li nga gëm waaye Sénégal yëmul ci parti politique loolu moo tax man je suis très rassuré parce que Sénégal du tàkk hein? le Sénégal ne va pas brûler Jamais. parce que ressort yi ñu am moo dëgër